nekk lu nga xamante ni fan yëpp cri de la bu jigéen yëpp porté oh. combat bu jigéen yëpp porté oh. mu doon ñàkk mu ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu doon matu euh, foofee ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga naka nga ko dundee déjà boobu les nouvelle ak tamit sa gis-gis par rapport tolluwaay bi santé am ci réew mi waaw damay woy ne jigéen ndabal yàlla la saa yoo ko tuuree fay mm. du ci jigéen rek ak jëkkëram du ci jigéen rek ak doomam du ci jigéen rekk ak ñu muy mm. seqal àdduna ba ci hôpital yi mm-hmm. comme nii xew tey jii ah dafa yéeme àdduna bépp la naqari mm. waaye nag dañuy delloo xel yi ci borom bi mm. ndax lu yàlla nam faaw mu am lu yàlla suñu borom namu faw ma am xaj na yàlla moo ne woon astu soxna moomu kat bés sàngam dina dem ci hôpital ba lii dina ko dal dana fa jànkoonteeg li dina ma wuy si man boroomam mm-hmm. ba tax nañu ñaan yàlla na xippee àjjana te rafet nañ ci njort mm-hmm. di wax rek nag toujours rek suñu mbokki sage-femme yi ak docteur yi nañ ko doon waxee rek ci yërmande ñuy gën a doxal yërmande parce que doo wax ñëpp mm-hmm. ndax boo nee ñëpp rek ñi baax dañuy gedd seen cër dëgg la ndax liggéey boo dem. Hmm. am na ñu baax am na ñu demee neneen. Hmm. ba ci marché yi ñiy jaay. am na ñoo xam ne boo leen nee jaay ma kaf ak yow ba jaay hmm. am na ñoo xam ne boo leen jaay sax day mel ni danga leen a saaga. ñu wax ak yow yeneen. loolu ci àdduna la nekk. ba ñun nii di waykat yi sax am na ñu def mel nii am na ñu mel nii yàlla moo sàkk doomu aadama te yemalewul waaye may wax nag rek ñoom suñu mbokki saas-faam yi ndax sage-femme xanaa jigéen lay doon de. Mhm, jigéen te jigéen nag wax dëgg yàlla. Mhm. war naa mën a yërëm. moroomu jigéenam ndax jigéen ñun ñooy yaay. te képp ku jigéen taxaw ci sa kanam ngay góor di jigéen rek xoole ko sa yaay. Mhm. man tey jii boo taxawee ci sama kanam am lu la naqare damay xoole sama yaay wala sama doom. ndax jigéen moo ëmb lépp ci àdduna. màngasinu yàlla bi mu denc ngëneelam yi jigéen ñi la mm-hmm. mais ñaan nag ñu am tuuti yërmande mm-hmm. ci jigéen ñi ndax ndax ndaw si bi mu génnee àdduna ba tey mm-hmm. lu ne ngay dégg lu dégg la am na ñoo xam ne dañu génn wax nañu keroog bu may wasin nee nañ ma lii keroog ñoo ma def lii ba amatuma doom waaye lépp nañ ko delloo ci loxoy sunu boroom la yàlla mooy kenn d'accord te lu mu namut du am ñu koy ñaanal nag as soxna yàlla na xippee àjjana di ñaan nag suñu mbokki sage-femme yi ak docteur yi yërmane ñu gën a ne nag ñëpp ndax bu ñëpp yemee ku nekk gedd sa cër mhm. waaye ñu defaraat toogaay yi rek mhm. am yërmande ku nekk ci sa morom buñ ko defee rek yàlla mën na noo dimbali ba yu mel ni dootu fi mhm. am na solo donc mu nekk kàddu bi nga xamante ni yaa ngi ko jeexalee ci également sensibiliser jigéen yëpp. Mhm. rawatina ñi yëngatu ci wàllu santé. ngir ñu mhm. gën a mun a am euh, des valeurs humaines. Euh, gën a mun a gérer accueil bi parce que ku ñëw feebar je pense que ni boo ñëwee balaa ñu lay defal ay soins lu ñu njëkk def mooy euh, accueil bi déjà nga lañu moo war a njëkk baax. su ko defee yow mi malade bi nga a dalal sa xel. ci du ñam la bu kanam leeree nga rek lu ca topp deseer la mm-hmm. ndax ki nga jàkkaarloo rek mu nuyu la wax ak yow ak la muy waxee ak yow rek def na ci yow leneen bu dee dafa nuyoog yow ak caractère ak leneen indi lan na la problème bu dee dafa kaf ak yow raay la ne la massa naa nga massa du faj góom de waaye dina wàññi tuuti métti mm-hmm. nen nen nen rafetal rek. dina apaiser waaw et c'est important donc <laughs> beneen actualité laataal nag ñu gën a ñëw xóotal suñu waxtaan jëmale ko sa carrière euh, ñun bu ñu amee suñu invité dañuy àtt ak moom ci li nga xamante ni mooy les questions d'actualité. Mm-hmm. donc beneen question d'actualité bi yaa ngi koy suivre depuis lors depuis maintenant un di jigéen ngay woy tout le temps jigéen yi nga xam tout le temps dañuy ñaawlu que dañ leen di violer ak également bu ñu demee ba porter mbir mbir mi devant la justice euh, dem tribunal ñu leen di brutal hospitalisé euh, bien vrai que nag la l'affaire est toujours pendant devant la justice justice joxeegu ci li nga xamante ni moom mooy verdict bi. waaw man de ma waxaat li ma waxoon rek jigéen de ndabal yàlla la saa yoo ko tuuree fay ko yàlla na nga xam ak aji saar ak kam ko seqal ñoom dong ñoo xam fii mm. man leeru ma yow leeru la leerul sa morom. Mm. yàlla it mi nga xamante ne di moom la leer mu nekk seen diggante yàlla du ñëw di wax ak kenn waaye mën naa àtte nag mm. mën naa àtte de ba tax na diggante aji saar ak kim ko seqal boobu ba tey ñu ngi naan aji saar sonko la ñuy wax mm-hmm. ah tubaarkaala macha allah ah yal yàlla leeral yal na yàlla leeral li may delloowaat daal mooy nanu ubbiwaat suñuy xel tey xalaat ndax xel njariñam mooy xalaat te jigéen ndabal yàlla la saa yoo ko tuuree fay ko mm. ndax boo gisee sama woy bu mujj bi ma woy taxawe doom di sa yaay mbaa di sa jabar fonk ko mooy li war ndax jigéen boo ko xoolee rek dinga gis ci moom sa lépp comme ni ma ko waxee léegi comme jigéen laa taseeg yow dama lay xoole sama doom mm. wala sama yaay kon dina am ci yërmande rawatina nag góor ñi nañu jàppale jigéen ñi tey yërëm jigéen ñi tey fonk jigéen ñi aji saar day man képp kuy jur yërëm nga ko wax dëgg yàlla yàlla moo fi nekk képp kuy jur rekk yërëm nga ko bu waxee waaye li ci des nag leeru ma leer lu suñu borom la leer. Mm. yal na yàlla leer. macha allah <laughs> alors maman bu ñu ñëw ci sa carrière euh, tey jii boo ñu doon di retracer un tout petit peu sa parcours di ñëw sa carrière ak mbëggeel bi nga am ci musique euh, gis naa ni euh, ba ngay door musique yaa ngi ko doon wax ci sa interview yi nga xam jot nga ko accordé commencé nga ci li nga xamante ni mooy ci ay assiette ci mm-hmm. ay tëgg bool ak yu ni mel loolu teel a manifester li nga xamante ni mooy sa cofeel ci li nga xamante ni moom mooy musique également ngay géwél bokk ci famille bi nga xamante ni famille Crio mais tey jii booy ñëwaat ci à tes bi ngay doog a démarrer ak yooyu noonu yëpp naka la demee ci wàll musique. waaw musique moom tubaab fa kàlla macha allah dama koo nàmp man géwél la Fatou géwél laa tudd sant Diouf. Mm. juddu fekk samay mag sama papa ñun ñëpp ci ngéwél gi yàlla nag mooy def li ko neex ci jaam. jël woy def ko ci sama xel sama xalaat sama lépp mais way depuis ma am 13 ans. Hmm. damay dëpp samay bool di way ci mbedd yi li waral faatu géwél gi sax foofu la jógee. Hmm. ndax àngal bu nekk dama fa daan dem fu ñu ma dàqee ginnaaw raay ma demaat ca beneen poto lampe toog fa xale yi ñëw wër ma. Hmm. benn meeru bambara ndey santaan faatu su ko yàlla ko yàlla yërëm. alaamaaleykum moo ma tudde woon faatu géwél bi lay xale bii moo rey laa amee ñëpp naan faatu géwél. moo waral tey faatu géwél. ñuy raam di raam mais loolu ban année la woon ak tamit sa parents yi naka lañ ko accueillir lool. loolu yàgg na. Mhm. ndax sama yaay bi muy nelaw rek 76 la nelaw te boobu maa ngi am fukki at ak nget loolu yàgg na. Mhm. ay 74 73 yooyu laa ni am di tëggantu samay bool ma yónnee robine sax temps yooyu laabaan dafay bari bu ma déggee sabar. paan bi ci robinet bi laa koy teg dem ci laabaan ji <laughs> sama yaay day jékki-jékki rek mm. gis ku ma jiise ëmb ay yére ay xaalis mm. lu xew mbaa jàmm ñu ne ko faatu géwél moo doon way fee lii moo ko moom mm. mu ne ma nii bu ñooñu demee <laughs> dootuma ko nettali bu guddee moom danaan bàyyi ba gudd ba nga tëdd ba mm-hmm. nelaw mu mm-hmm. yee la jógal wax li nga def tey ci bëccëg bi loo ko mënoon a defee. Mm. yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na xëppee àjjana. ci dara